boo xamante ni bii noonu la demee kenn nattablewul ni tàbbi ci mbooloo mu leen gën a gën a jege yàlla dootu bari ah en tout cas pas au niveau massal mbooloo mu tol nii te ku ci jóg wax ci yàlla lu tol nii xam-xam bu wére nii bu dëgëre nii sëriñ saaliw rekk mu sa def googu kéemaan mustaam waaye ay murit lanu tey nag yàgg na nu fi de yàgg nañoo màggali de ku baax ku ne jaar na fi waaye lii lii mustaam man day xawma bii uniwersité nan la fi ab murit deeti daje di wax nit ñi leneen te lii kat yombul du dag koy jàng ci téere déedéet da ngay jéblu lii jéblu ci un maître parfait mooy sëriñ bu ma tub moo la mën a may ci jëf ja jëf ci moom muy ndigal ya moo la mën a may xam-xam bii waaye boo ko jàngoon ci téere boo taxawee ci biir mbooloo boo ko bëggee restituer gàgg lu tuuti moo lay gàggloo doo ko man ce serait une connaissance théorique non assimilé, Ce serait une connaissance non réalisée en soi. Donc, man. kon lit nos nos di de sëriñ bi di sëriñ touba. mu tout bas. xam-xamam nous dit. kon xam-xam bi da ngay jeblu jeblu ci kan jeblu ci serigne bu batub serigne yoonu murit nak ma yegal len ni kep ku jeblu serigne toubay nungu fo meuna a bu sering bi dogalee ci yow nga wara murid, doon murit tudd murit koo jébbalu ci mom serigne toubay nungu sëriñ saaliw mii mooy nungu njébbal yi ndax ak ruu ngay jël di ko jébbale ci àddina sii ak alaxira te dangeen ngeen di fàttaliku yonent bi salallaahu alayhi wa ba yawut yi nga xam ne ñoo jógoon xaybar fekki ko di ko diiŋat booba ba ñu koy laaj lan moo di ak ruu laaj nañu ko laaj yu bari yu ci ne sunu borom daa yónni jibril mu wax ko tont ya ba mu des ak ruu da ko ni dinañ la laaj ak ruu waaye bu ci jéem a xam dara ndax xamoo ci dara ak ruu nee leen mbirum sa borom mu ngi ci alxuraan lu di joxe ak ruu nungu ak ruu ku dul sëriñ tubaab mi sunu borom xamoo ci dara ak ruu dara yonent bi ngët ji bindéef yàlla xamal na ko ne xamoo lu dig ruu astama keneen te foo wëññi ko ni gaa ñi jébbal naa la sam bopp gaa ñi nungu moo seen ruuga fuñ ko def bu fekkente ni ñoom ñooy nungu sa bopp lay tàmbalee kat sëriñ tubaa rekk kay nungu jébbal naa la sa bopp sëriñ tubaa rekk kay nungu waaye jébbalu ak jëm ca yàlla ku jébbalu ku ne sa vocation mooy nga jëm ca yàlla waaye Serigne Touba daa wax ak nun ci Masaalikul Jinaan booy jébbalu nanga nga jébbalu ci ku yegg ku jaar ci yoon wa jëm ci yàlla ba yegg xam yoon wi xam obstacle ya xam la cay jommale xam seytaane ma cay dogalee boo jébbaloo ci ku xamul manam ku demul ba yegg ci yalla yalla wulul ko bopam joxat ko mission mu ci wat ci mbolo mi ngir man di jël di wat bo topé ci ko kayit do yegg fu mu jëm rek la la jëme serigne ci bari nañu ko jéxal ab téré dal di def sa bop ab sëriñ képp ko xam man nga taré ay sar dal di def sa bop ab sëriñ sëriñ nag da am ak sëriñ ak sëriñ ak sëriñ sëriñ buy jàngale ab oustaz manam da bokul ak sëriñ buy jàngale xam-xam xam-xam entendu dans son sens externe. Serigne bi man na doon serigne bu lay wax li yalla li yalla bëgg te diglé ko ak li yalla téré man nga jang ba doon alim mën ngaa jeexal téere yëpp xam li yàlla digle ak li mu tere nga di ko wax ni taalibe yi nekk ak ñoom ñu di leen jàngal li yàlla wax ci araf yi araf yi rek lañ mën a tudd waaye li mu ëmb xamuñ ca dara ñii mën nañu sax firi pirim kaw mën a wax li yàlla jublu ci ji wax li mu ci bëgg ak limu ci tere waaye nun bun naa sëriñ seexul mu rabbi la ñuy wax ku mën a tërbiya góor maanaam koo xam ni man ngaa xam liy woppi xol li nekk ci nit te tere koo yegg ci yàlla sëriñ bu ma tub sëriñ tax may wax te sëriñ bu ma tub sëriñ benn la fi sëriñ Tuubaa rekk mooy sëriñ bu ma tub sëriñ noonu dañu ko mën a tudde ndax loolu la indee boppam loolu lanu won moo fi yóbbu góor ci yàlla moo lay gërëm yàlla gërëm la te yegg ci yàlla mooy am ngërëmul sëriñ tubaa kon gaa ñi bari nañu ñi wooye seen bopp bari nañu sëriñ ñi wooye seen bopp sëriñ bari na te koo ci ni damay jébbalu mu am fitu ni la kaay ma nangul la ko dans une certaine mesure buñ doon yem foofu sax du garaaw ndax fu waay jébbaloo sëriñ tubaay nangu fu waay jébbaloo sëriñ saaliwu mii moo wax ak man moo ma ni fépp fu waay jébbaloo jël loxoom bu tedd ba teg ci dënnam ba ni ma fii la te réew mi danoo dem ba sëriñ si sëriñ tubaab may na leen ab jay lool dem nañu ba yoonu murit dañu ko séddale daanaka ay kër man taalubeb kër sëñ diw man taalubeb kër sëñ diw dem nañu léegi ba yoon wi mel ni ay tariixa ku ci ne woon ni maa gën maa man maa sut maa raw te ñépp di ay taalube yoon wi lu ci kaala rëy rëy rëy lu ciw sant rafet rafet ñépp taalubey sëriñ tubaa la ñu te sëriñ saaliw mii mooy sëriñ tubaa te loolu daa yomb a xam te taalube yi

moy rattachement initiatique moy lan moy fek kum la wour ni ki yalla ne ci mom nga jébbal ko sa bop ak alakhira di weye ndigalam mu wour la ni li nga takol mbirum yalla la waye du koy ubi bi jangale te takko goge nga takko mbirum sunu borom mo la bolé ci siratal mustaqima cette colonne de lumière cette voie droite qui mène vers le Seigneur loli moy djeblu moy rattachement initiatique lola ken rek la muy serigne bi serigne bobé nak moo créé des centre secondaires rattachés au centre principal képp koo xam ni moom tërbiye na la gërëm na la liggéeyloo na la jox na leer jox la leer ga ba def ci yow ab cër créé na ci yow un centre secondaire centre secondaire boobee bu ko joxee ndigal man nañuy jaar ca moom di jébbalu kooka kat xamul lu di ak roo waaye am na ndigal ku jébbalu ci moom sëriñ boobee mooy nungu mooy kenn ki waaye bu la ko nungulee centre secondaire bii nga xam ne ci ngay jaar moom bu jub la ndax le centre là est directement rattaché au centre principal qui constitue la manifestation de cette colonne de lumière descendue du ciel parce que principe le, sa manifestation concrète moi je me nga xam ni mon moomee mais mon le wax Serigne Touba kon Serigne si nyom ñëpp ay taalibe la ñu da ci am donne nañ ko ci seen maam wala donne nañ ko ci seen baay ña nga xam ne ñoo toppoon seen maam ak seen baay nit ñi wekk nañu leen ndax seen jëmmi maam ja ndax seen jëmmi baay ja na leen sëriñ tubaa defoon ba mënuñu leen a wooye leneen lu dul ay sëriñ waaye ay sëriñ de fait bokkul ak ay sëriñ réalisé waaw dañ la naan sëriñ nga rek waaye lañu la wax doonoo ko da ngaa Beaucoup rek bu ko defee sa maam peut dans le temps avoir été un centre secondaire par rapport à Serigne Touba waaye yow mi amul réalisation bi du ab centre ndax le centre que constituait ton grand-père ou ton père ce centre a dégénéré il n'est plus un centre authentique te moo bari léegi ci réew mi di woy sama maam di woy sama baay taalibe yi ñëw di jébbalu ci yow di jàppale sa maam loolu erreur la te nit ñi lii de li ma wóor mooy xam-xam bii ngeen di wesaare bu bu bu bu nit ñi danañ yewu ku ñuy jébbaloo te dinañ xam ci ki ñuy jébbalu ko mu loolu lu mat a xam la ndax da ci am loo xam ni dañu koy jël di wuti xam-xam te mooy njàlbeen gi kuy jébbalu xamal ci koy jébbalu sëriñ si au pluriel ay taalibe lañu bala ngaa jébbalu ci ab sëriñ xamal ba xam ndax kii mën na laa yóbbu ca yàlla walla déet ku amul ngërëmul sëriñ tubaa te sëriñ tubaa jox la ndigal am ngërëm li daa doyul ndax dangay am ngërëm li am ndigal serigne bi man na la gërëm yow yegg nga waaye yegg ak yeggale daa bokkul du ñëpp ñoo am kóolu tëb yeggale benn ñaareel ba du ñëpp ñoo apte à conduire les autres vers la proximité tout le monde n'est est pas apte on peut être apte à être agréé à avoir le ngërëm de Serigne Touba Mais tout le monde n'est pas apte, apte à conduire les autres vers le Seigneur. kon balanga ngaa jébbalu réfléchis ndax li tardeel ñu bari mooy jébbalu ci sëriñ bu matub mana mën Quran lol, xuraan lu bax la Mana firi prix bu kaw lu bax la man ni diwéy sama baay lu baax la sa baay baax Sëriñ Tubaa gërëm ko joxoon ko cër lu am solo la waaye nag sama baay baax na man baax naa automatiquement loolu amul loolu amul bala ngeen a seet leen ci ki ngay ki ngeen di jébbalu ndax yegg na walla yeggul xañ na sax mënu leen a xam ku yegg ak ku yeggul waaye kat ñi naa yegg naa walla yegguma ku yegg xam nga nit ñee dul xam ndax yegg nga wala déet waaye ku yegg kat xam ko ñi naa yegg naa mën na maa yóbboo ku ci yegg ku ne xam nga ku yeggul it xam nga ko ndax ku yegg ñu woon la mu yegg kon le choix d'un maître, d'un guide spirituel est un moment capital. Vous koy def bul rabax rabaxi seetlul tànnal dëgg De lu ci bari ay dogol la xañ na sax do ko mën a Waye bo boo ci wut gi ngay wut yalla, serigne bi mom dana la gindi dina fexé bëgg a gindiku bu boobaa nag moom ngay dégg ñii naan damay yeesal sama njëbbal yeesalu njëbbal ku koy def ku ne xam nga ne fa nga jébbal woon xomaat na te demoo fenn waaw sëriñ Tuubaa rek ngay jébbalu ci moom te doonaa damay yeesal sama njëbbal boo koy yeesal ci kat nga koy yeesal waaye keneen ku dul sëriñ Tuubaa boo ko toppee te xamoo fu mu la jëmee man ngaa yeesal sa njëbbal ci koo jàpp ni moo la gën a jége sëriñ Tuubaa kon njëbbal yi dañ leen di yeesal boo déggee ñu naa ko jébbalu dootoo jébbalu loolu waxi neen la ku jébbali ci ku jëmul fenn ku la mënta yóbbu dangay yeesal sa njëbbal ci koo xam ne mo la gëna a jege sëriñ tubaa wala nga dem ci sëriñ touba boko mëne jot kon loolu leer na ñi na jigen du jébbalu loolu it waxi neen la jigen ab julit la li alquran sante la sante jigen kon jigen du bulu, waxi kasaw kasaw la ñii ni fi san baay jébbalu laay jébbalu man day san maam mooy kër sunu kër maam mooy kër diw waaw sa maam ba muy jébbalu man naa am ka mu jébbalu woon sëriñ bu ma tub sëriñ la woon waaw nga defee ni sëriñ bu ma tub sëriñ ku mu jur rek sëriñ bu ma tub sëriñ nga waaw médecin bii bu doom ji dee bëri te jàngul fikir di fikire ku fikir doo dee ma loolu amul nañu bàyyi nun di wéy eh, sunu maam kër diw la ne woon falanuy ne dama ni nit ñi yéen ñii dey ñi ci seen maam nekkoon ay béykat bari na lool moo ndax yéen bëggeen ngeen jógee métier mbéy ngeen jël waaw saa maam ni nekkoon na lii kon moom lay ne foo ko teg dama ni seetlu leen mbir yi kuy tàbbi ci barab xamal ca la ngay tàbbi kuy tàbbi ci barab xamal la ngay tàbbi jébbalu naa jébbalu mooy joxe sa bopp war a ndigal di bàyyi tere ngir yegg ci yàlla jébbalu moom képp koo xam ne kii yaa ngi koy def te xam lu mu mooy yow da ngaa namm ci yàlla ndax diine ji kat ñaari mbir la ñi nga xam ne ajjana moo leen moo leen yëkkati ñu ragal safara bëgg ajjana ak ñi nga xam aljana ragalu ñu safara ñoom daal diggante bi seetuñu ko ñoom dañoo bëgg a yegg ca yàlla mooy lan yegg ci yàlla mooy avoir obtenu la délivrance ndax jaamu yàlla bu fekkente ni mënulaa yóbbu ca yàlla li ci li nga gën a am ca loola mooy dem aljana le paradis, son bonheur est limité et il est conditionné. àjjana yu neex ya nga fay dégg am na fu mu yem de te daa am ci luñ koy teg ngir nga mën koo am la weesu foofa nag mooy ce qu'on la délivrance waaw dem ba sunu weesu nit tàbbi ca principe ba kookee moo délivré yàlla képp koo xam ni jaamu nga ko liggéeyal nga ko ba seey ci moom waxatoo waxi àjjana dëgg la neexitu ëllëg ci kàllaamay wolof dañ koy tudde aljana waaye yegg ci yàlla ak aljana bokkul képp koo xam ni bëgg nga bu ëllëgee un bonheur permanent qui s'assimile au plaisir qu'on a dans la lumière divine da ngay jébbalu wut ngërëmul yàlla yegg ca ndax yegg dafa bari boo jëmoon boo jóge woon ndar ñëw ba ci diggante bi man nga ni yegg naa université boo taxawee ca bunt ba gis làmp yi man nga ni maa ngi université waaye université surface bi rëy na te am na foo xam ni man ngaa seen université ni yegg na yegg dàpp nu ngoo sëriñ bi nanu ko nu nguy sant loolee ku ca nekk te caaxaanoo am pëstéef te yàlla dogal ko ci yow dinga am ngërëm ngërëm loolee mooy yegg ci yàlla man ngaa jëf ñu gërëm la keneen jëf lu ëpp li nga jëf ñu gërëm ko bul yaakaar ni yéen a fu ngeen tollu kon nanu góorgóorlu te sax si jëf ji jëf ji mooy ndigalam yi mu nuy digal murit yi nag am na ci ñoo xam ni boo demee di joxe addiya nga xam ni yaay apprécier sa bopp dem di joxe ci sa addiya kem noo ko mënee walla nga dem xel koom te kenn woowu la fa te yoroo ndigal te la la fa yóbbu ka la fa yóbbu amul ndigal wala nga romb rek gaa ñi béy nga ne ah tool sëriñ baa ngi kon nag naa fi ne damay liggéeyal sëriñ bi foo toll dégg damay liggéeyal sëriñ bi damay déet déet loolu tuddul liggéeyal sëriñ bi yaa ngi def lu baax ci sëriñ bi yàllaa ko wax boo defee benn ma fay la fukk ngay am door a la ngay def liggéeyal sëriñ bi bo amul ndigal la ngay def ci sëriñ bi di yobbu addiya wala nga dem ca xayam nga jël bale di bale wala nga ñëw fekk ndam la nga dem roti di ci def lolé lepp lu bax la waye buñ la ko santul buñ la ko digalul ta tuddu liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi sa condition nekk qua non mooy sëriñ bi jox la ca ndigal am na ñoo xam ne it dañuy dem fa sëriñ bi ni ko am ah, Mbàkke nun de danoo bëgg a dem itali danoo bëggoon nga jox nu ndigal walla man ne Mbàkke damaa bëgg a takk soxna bëgg nga jox ma ndigal ndigal de su ko quérir le ndigal n'est pas quérable da ngay dañ ndigal sëriñ bi c'est spontané ndax fa mu koy teg ci baatin ci diine moom moo ko xam la lay jariñ moo ko xam ndigal kenn du dem ci diw naa ko jox ma ndigal loolu tuddul ndigal da ngay tàggoo sëriñ bi mën na caa ànd comme mën na laa am lu mu la wax ni la tee ngaa nii bokkul ndigal ndigal bokkul ak koo xam ni sa dom dang ko bëgg nandal xarfal dem ci sëriñ bi na ko man ka dama bëgg xarfal sama dom keroog aljuma dama bëgg ndigal déedéet loolu du ndigal ba ndigalam di ñew ci yow ku top ci yow nga diko jox digal man day momay wo ma ñew mu ne ma dama bëgg nga dem xel koom dajaleel ma nafal ma dekkil ma ndax ya kat dégg na gerte ga daanaka mu nga yàqu mom man nga dajale mbolo mu mat junnee mané ko mbacké man na juróomi junni mun ma kon nak digal na la demal xel koom yak sa mbolo ngeen dajalel ma loloy ndigal man imaginer wu ma dégg ni gerte gi ñor na rek ma dag ca lag dik ni serigne bi bëgg na ko dekkil ma dem di dekk tek ko ndigal dedet serigne bi xamna limu bëgg serigne bi doye diwul te du fàtte serigne bi lu ko war limu bëgg tek ko ci ndigal ndigal pay ga da ser serigne bi du ko jox n'importe qui ki sëriñ bi diggal da koy tànn becco ma ne ko mbàkke mun ma sama daara yi ñibbi géel jee bëgg naa nga tabaxal ma ko waaye loolooy ndigal gaañi ma woo leen demu leen woona waaye gaañi loolooy ndigal waaye fekk naa fee néeg sëriñ bi jooy rek ma ne naa ko defaraat lu baax la waaye bokkul ak ndigal du liggéeyal sëriñ Tuubaa

ñu ni jigéen lu jébbalu loolu amul góor ak jigéen ñëpp ay jébbalu waaw waaw ndaw bu fekkente ni gone gi tuuti na ba amagul conscience su mën a xam lan moo di jébbal na an ñooñu ka nga xam ni mooy kilifaam ci saayir ka am ab dogal ci moom ci fa mu tollu ci at na dem jébbale ji ko bu dee jigéen bu fekkee ànd nag borom këram na ko borom këram jébbale bu ko jébbalewul na jébbalu te ba ko fa man de dama ci am exemple damaa ànd ak sama benn collègue Ndakaaru c'est un ami mën na maa tudd turam Moustapha Diaw qui fut directeur de cabinet du ministre de la culture Alioune maa ànd ak moom ak soxnaam sëñ Béthio man kat damaa bëgg a jébbalu saaliw Serigne Saliou ma ne quoi ah, wax ko mustafaa mu ne Moustapha damaa bëgg a ko wax ko Serigne ba xam ne muy tontu mu ne Serigne Saliou damaa bëgg a jébbalu mu ne ko tàllal say loxo billaahi wallahi taala c'est un cas concret bu la sa jëkkër nungu la jébbale jébbalul Liko alquran sante rek la la sante amul sama jeuker li la duma jeblu ab tidian la khadir la ibaadu rahman la kon nangam ak nangam lankal bo jàkkaarloog sëriñ tubaa jébbalul ah waaw maa fekke it nag te je m'adresse aux filles maa fekkee ku ñëw ci sëriñ saaliwu ni ko man day mbàkke sab taalube laa waaye daa am ku ma bëgg te du taalube mbàkke waaye waxtaan na moom ba nee na ma bu ma jébbaloo mu bàyyi ma ci sama yoon sëriñ bi ni ko ah na la wax dëgg de bu fekkente ni mën na laa bàyyi ci saw yoon ndegam man nga laaj man ngaa dem ànd ak moom waaye bu la ca dul bàyyi jële la ci yoonu murit la yóbbu feneen dara jaru ko àddina jaru ko wan ginnaaw sëriñ Tuubaa dey ku ko def boo dee lakk ah il faut faire attention sëriñ Tuubaa kenn du ko wan ginnaaw sëriñ Tuubaa ku ko won ginnaaw al ko te fii ci àddina nga koy gisee balaa ëllëg waaye di jigéen fexe ba jébbalu dugg ci koo xam ni bu ëllëgee nobel dina tax boo nee sëriñ tubaab mu toj saw ngaam te doo ca man dara mas si ëpp naa def billaay jëkkër jaru ko jëkkër jaru ko de kon mbooloo mi da cee am ñoo xam ni man nag sax ci sama waa kër bariwu ci wax dëgg yàlla bokk ci mbooloo bu ndigal ñëwee li sëriñ bi laaj mat yow joxe woo dara nga raaxaloo ci biir mbooloo mi te naa a def nanu nangam waay nun noo tabax ñibbi jël nun nooy ñoo noo def lii noo def laa te bi ñu yenn ci birig yi sax yenn woo yaa ngi raaxaloo ci biir gaañ yi dàq waxtaan ñépp te boo ñëwee yaay dàqat ñetti li ñëpp attention gaañi bu kenn nax sa bopp lu tol ni sarra boo ko defalee sëriñ tubaa ni ko yàlla waxe ci alxuraan mu fay la waaye ku deful dara doo fayu dara bàyyi leen bu ñu laajee toggi àllarba yi joxewoo dara te foo tolluy waxtaan naa nun sëriñ bi nooy togg altine talaata ba te defoo dara dëpp naa def ab liggéey boo ca bokkee am taw féexi ndigal di ñëw ci yow ndax ñëpp mënuñu ko am kon boo jotee ndigal da ngay sa tànku tubéy ba bu la kenn mën ca ndigal la nii la demee yooyu dafa bari ci yoon wi yoo xam ni ay obstacle la à la réalisation spirituelle te ñu bari ràññet la wuñu ko di ci juum ma bëgg yéen ñi nga xam ni mel na ni mucc ngeen ci ngeen gën a góorlu képp koo xam ni amoon nga ci lu la lu la lu la lu nga laaj ko bëggën ko xam ci loolu nag foofu laa yem bàyyi leen ak kàddu may leen trente minutes ngeen laaj ma lu ngeen bëgg a laaj ci yoon wi lu ma ci xam wax leen ko lu ma ci xamul ñeneen a fi ñu wax leen ko bu ma nuppee jox kàddu sëriñ mbeng mu waxtaan ak yéen fii barabu xam-xam la bu doon ci saa yi rek ci université la nu ne li ñu fiy joxe sax tuddul xam-xam ndax lépp yàllaa koy sàkk te fii njàng mi l'enseignement qu'on y prodigue ne se rattache pas au principe divin fii li ñuy jàng njàng mu këtt la waaw ndax luy am lu ne yàlla la sàkk xam-xam bu wàcc yàllaa ko sàkk te boo dogalee xam-xam bii ngay jàngale fii à ras de sol boo ko coupé par rapport à son principe premier xam-xam nekkatu ca xam-xam bu dee mat bu dee physique bu dee grammaire bu dee lu mu mën a doon boo ko takkalewul ak principe divin ba këtt nga xam-xam ba du xam-xam c'est un savoir profane qui n'est pas un savoir qui n'est pas une connaissance c'est un savoir kon xam-xam bi, kuko ko bëgg da ngay jege ku ko xam un cheikh réalisé spirituellement parlant man dey sama baay doon woonub sëriñ sama maam musta doon ab sëriñ musuñu am kenn ku leen topp man ma topp ku matub sëriñ mu def ma sëriñ seexal ma boole mag mbooloo ku bëgg loo xam ci yoonu murit néew ma xam naa lépp de laaj ma ma wax ak yow ndax man mii lañu ñu sutti leeru xam-xamu yoonu murit ci man kem la fa yem kon maa ngi leen di bàyyi kàddu gi rajo baa ngi ndax li ma toon a wax ibrahima jañ wax nako ñi ci wax nañ ko man amena ci xam-xam bu yes ibrahima jañ mi dootuma ko bayyi mu noppalu di nga wër réew mi ah ndax xam nga man nga am un savoir sans être apte pédagogiquement à communiquer et à dispenser un savoir qui ne il a la méthode pédagogique il a la selle qu'il faut barke Serigne Touba yàlla na nga gën a ubbiku maa ngi dogu ci Serigne Saliou xam-xam bii nga xam ni moom la la Serigne bi defal maa ngi dogu ci sëriñ Saliou Mbacke mu yox ko te bu mu yem fen yàlla na nga ko ànd ak wér yàlla na barkeel. yàlla na nga ci jele njariñ te jariñoo ci barke serigne saliwu kon radio bangi kep ko xamni ni ci yoonu murit am nga lo lu leerul ci yow kem na mako xame xamee boo ma ko laajee ma wax la lama ma xam bu ma xamul dina jox kenen ku xam legi ci bir mbolo mi kon radio bangi.

les cinq prières te weer di fës ci itam ba tey ñu gis ni ci wàllu cant gi ni mu ko mënee exprimer mooy wàllu yëg-yëg la ñuy am te yëg-yëg boobu dinañu yóbbu ci ay niveau yu nga xam si ni dañ ciy communiquer sax sunu yeneen mbokk yi nga xam si ni peut-être même expression yëg-yëg yi ñu koy am ñu ngi ko am à travers des wér yooyu bañ ñu leen ci wax ci lu ñu xamul maanaam mu mel ne. yow ci cant gi da ngay dem ba nit doo ko xoolati en tant que nit rek mais yaa ngi gis ci à travers nit ki euh, ay am yuy dox bon dafay mel ne doo doo ko teg xar yi wala bàyyi ma yi wala dara da ngay gis ni c'est des êtres qui dépendent directement à un principe divin noonu ngay xoolee nit ki dafay dem bay day dindi ci yow maanaam euh, li ñuy wax ab rëy parce que maçon beeg mécanicien beeg ingénieur bi nga bokk yemale lenn rek moy def différence ci situation ak yeen moy walu talibé gi ma bëggoon xam rapprochement boobu noonu par rapport au cant les cinq piliers divins nan la amee rapprochement par rapport au cant parce que dafay mel na cant ki alors dafay dëxëñ non seulement cinq piliers divins yi mais aussi en même temps wérdu yooyu yëpp dafa mel ne dafa tasaaroo ci biir cant gi parce que même yëg-yëg yi ku bi ni ci am ñun cantaaku ni ku ci amul bu nu toll itam fooxa nañ ko ci wàllu waxtaan bu ne boobu moo doon première question bi euh, ñaareelu question bi nekk ci wàllub euh, diine euh, bi ma doon gëstu fan yi ci benn suuraat bu mooy bu njëkk bi bi nga xam si ni sunu borom daanaka ci la tijjee lu bëri muy Fatiha bi ñu koy gisee ak ci wàllu waxtaan bi ci diggante nañ ko jëlee ci jalaal ji ak jamaal ji dañuy dem ba gis ni ci Fatiha bi nga xam si ni lu mu nekkut wérut suñu borom dafa mel ne ñaari langage la jëlee foofu parce que ci début bi dafa doon présenté boppam di wane ni que moom océan de générosité rek mooy aji baax bi mooy borom yërmande bi tabal ci benn baatu cant muy cant làmmiñ dellusiwaat exprimé waat que mooy borom yërmande bi waaye ba mu dellusiwaat dafa mel ne beneen baat bi moo koy gulbatiku di ko tagg mooy maaliki yow mi diin yaaka nax ba du yaaka na seen ba jeexal mu mel ne keneen a koy tagg donc yaa ce n'est plus euh, le transcendant, mais c'est l'ascendant qui parle au transcendant. Ou bien, nous pouvons comprendre, c'est Jamal qui s'adresse à Jalal dans la seconde phase, mais dans la première phase, c'est Jalal seul qui s'exprime. Bon, je suis mon ci appréhension bobu muy walu yek mais du lu wër ci man ma Je ci am itam réalisation spirituelle je suko réalisation spirituelle boo bëggee mu effective da ngay wut sëriñ bu matub sëriñ sëriñ bu matub sëriñ moom ngay topp mu di la digal di la tere la mën réaliser spirituellement waaye werd mën na laa wér de mën naa ubbee ba nga mel ni ya ku seen source ba di nga dem ba mel ni source lumière ba fa muy jógee wér de mën na laa yóbbu ba nga yegg fa ci kaw boo dee wér de tur yàlla waaye mënu laa réaliser ku jóg rek nga réaliser spirituellement ne ci wér de man ngaa ya dem ba seytaane dogale la dof loola ak a bari ci ñuy wér danañ la won loo xam ni seytaane képp la boo dëggoo nag sa làmmiñ wi di tudd sunu boroom sa xol bi du ko yëg te nga jël ko en permanence man ngaa dem ba gis la source de la lumière waaye fa nga yem doo ko weesu li nga wax nag ci fàttiya sunu boroom da ciy wax yër yërmandeem waaye it di ci wax ki mu doon di ci xuppe di wone ni mooy borom bi mooy buur te buur mënta am tey dak amul li ci wone nii bu mbëggam ak ak ak yërmandeem ameet ak meram am na dëgg la mbëggam moo jiitu meram loolu moo tax waa ahlu tasuuf ni ñi nga xam ni yàlla dëll leen safara danañu dem sax safara fa jog sax nak waye safara day dem ba do doon safara yi nga xamni mom la nuy gis nga xamni metit wi mu ngi ci gis gi rek muy lak nga gis ko waye day dem ba melni ni safara si yont yalla ibrahima je nga seen yont yalla ibrahima ci bir nga di ko sa xol bi ñewante te fekk na booba moo gën a raw galaas waaye dañ caa boole salaam kon ci Faatiya ay parti parti la y a deux principales bii sunu boroom da ciy wax yërmandeem bii da lay teg ci seraatal mustaqima da ci wone kattanam man de loolu laa ci xam dinaa jox sëriñ Jibril Mbeng mu jéem wax foofu lu mu ci xam. waaw dafa mel ne day faatixatul kitaab day xam-xam bépp da ko ëmb kon day mel ne ñu ko seex bi doon waxee léegi rek alxuraan. day mbir moo xam ne doon noo ngi dog ngànt waaye liñ jublu mooy jàngal rekk mbooloo mi tuuti ndax yàlla ba mu koy wàcce de dafa wax alxuraan rasulilaay ne ko maa ngi wàcce ci yow alxuraan di tubayyina li naasi maa nusila ilayhim wàcce naa ci yow alxuraan yow Muhammad ngir nga jàngal mbindeef yi li ma yónnee mbindeef yi li ma wàccee ci ñoom te fatiha day mel ne alxuraan gépp ëmb na ko baatinu fatiha kon géej la goo xam ne day mel ne lu jafee xam la lu jafee dégg la yonent bi nag dafa dul jóg mooy li seex bi jàngale rek ci wàllu xam-xamu téere yi ak sëriñ si doon wax alxuraan bu doon moom rek duñu xam nu nuy jullee bu doon moom dong duñu xam nu nuy woore yàlla digle na ci julleeg woor rek waaye yonent benn jàngal lu nuy jullee ak nu nuy woore moo nu xamal waxtu yi waxtu woon koy julli ak ñaata rakkaa lay doon moo nu xamal koor gi wan waxtu lañ koy tàmbali ak waxtu waxtu woon koy dog waaye loolu alxuraan jàngalewu ko maanaam ci gàttal daal sunu borom da ko wàcc ci rasulullah ngir mu jàngal nu jibril mi ko doon yónnee mi ko doon indi ci yonent bi sax yonent bi wax na ne lii mu wàcc ci man muy alxuraan man na maa toog jàngal ko ci fukk junni at moom jibril te du tax li ma xam ci alxuraan jeex kon géej la goo xam ne day mel ne ki saayir si nag saayir mi suñ ko doon firi li mu ëmb mooy yii mu doon wax alhamdulillahi ak tiant gi nu fi taxa dajale ki yalla jangale wane ko jago ndax lan rabbil alamina bo defalee nit mo la may xelma bu nit ñi doon ay chauffeur auto moy chauffeurum ñëpp bo defalee nit mo la may nanguga lam ko defal mo la ko wërsegal motax mu tek rabbil alamina joju ngir ñu xam lu lay way defalit yalla ci bopam mo jago tiant ga ngir lam la defal ab intérêt tax mu def ko ca la ko ci yàlla fay mu ëpp lam la defal ngir bëgg ñëpp di daje di sant yàlla ba buñ ko doon firi moom Faatiha day géej gu yaatoo yaatu kon daal coon ci sama gis-gis li mu doon waxit nag ci werd yi noonu nga ko waxee rek la ko Serigne Touba waxe Serigne Touba nee na werd ab sëriñ bu fi jógee doon nit yàlla nekk sa nekk sa ba nga xam ne jeex na takk takk tàkk tàkk tàkk amuloo benn gànt lenn li xam ne dootoo yëgati lenn dul suñu borom sëy sa ba jeex tàkk ànd seeg dal ànd seeg lépp nag suñu loolu rek la ñuy ñaan sëñ si barke suñu saalu suñu euh, réalisation spirituelle day ay degré yi degré la wax naa ko fi yegg ci yàlla mooy réalisation spirituelle yegg ci yàlla nag Serigne Saliou moo ma ko firi ci waxi wolof nee na ma yegg ci yàlla mooy am ngërëmul sëriñ Touba ah ni ma waxe woon léegi cofeel moo mën a yeggale nit fu jëfam mënta yegg cofeel daa féete kaw ñi lépp waaye cofeel it moo la mën a may ngay jëf ci sab sëriñ sab sëriñ boo ko bëggul am na noo xam ni doo ko ne jëfale waaye sa cofeel bu soree ci sëb sëriñ loola sëriñ ba sant ni ko def te cofeel ak jëf dañuy mel ni luy joxente interaction diggante cofeel ak jëf cofeel mën naa yokk jëf waaye jëf mooy dëggal ak cofeel bëgg naa la rekk te wane ko ci jëf sa mbëggeel wóorul sa jëfit sa cofeel a ko mën a mesurer ci sab sëriñ bu sab cofeel dëggoo ci sab sëriñ dana feeñ ci sa jëf sa digg ak sab sëriñ cofeel nag moo la mën a yóbbu ba nga seey ndax dañu ni ci wolof lu waay bëgg te dofu ca booba mbëggeel ga des na lu waay bëgg te dofu ca ba nit ki dof na nag booba mbëggeel ga des na man de naa la joxub xesa c'est dommage que ça me Sering cheikh jaxate doomi memang am seutu jaxate mo tok ci kanam serigne saliwu niko ko mi de serena ni na abdou Khadir Jilani seewon ci yalla mom mi seeye ni yow serigne saliwu tontu ko niko wax joji de nga wax waaw booba moom la wa moom la la sëriñ bi wax moom la sëriñ Cheikh Jaxate wax ni ko te it kat nit wërta seere lu dul lu mu xam mooy aaya boobu sëriñ ji bi wax sëriñ Saaliw tontu ko ni ko wax ji nga wax de dëggoon na ni aayab alxuraan boobu nga wax waaw ndax saay bokk dañ mënoon dof na fonctionnaire yi ma bokkaloon hiérarchie ñu doon ay administrateur civil booba maa nga Kaolack gouverneur bi préfet ba ak adjoint gouverneur yi dañoo mus a daje ni nu daal cheikh bi ñun yaa ngi delloo sunu garaat ndax nun ay administrateur civil lañu booba may administrateur commune Kaolack nun danoo jang ba nek fi nu jang bokk ak yow garat te yow mel ni dal da nga nuy da nga nuy rabaissé ndax ni ngay ramé ci serigne si ni nga xamni bu ñëwé danika tu ne te comportes pas en homme normal nun dal wax deug yalla yak nuy ruslo ñoña dañu ma tek ab dof japp nañu ni administrateur civil gënu doon dama ko déprécier kon sa mbëggeel ci sëriñ bi bu demul bañ dala jaawalee ko dof xamal ni seeyegoo ci sëriñ bi mbëggeel daal li wolof wax rek boo bëggee te jaawale wuñ la akub dof xamal ni booba sa mbëggeel des na bi ma ñew mu ni ma dama la bëgg dénk communauté rurale bu Touba té nga doxalé ko ni ñuy doxalé communauté rurale yi ci dess xam nga di sëriñ bi duma wo na ma jotel xana kan xam ngeen loolu lam ma wax ëmb na joti ak lenen té nga diko doxalé ni ñu koy doxale feneen te ma jàng communauté rurale bi may def ENAM sama année de sorti sama mémoire d'étude maa ngi ko def sur les finances de la communauté rurale booba xawma ma woon ni loolu lépp Serigne Saliou booba mënuma woon a xam ni man dinaa gérer ji ab communauté rurale ndax jàppoon naa man ni bu ma génnee nekk administrateur civil dinaa weesu la